ñu wéyal Infos Matin waxoon naa leen ko euh, sànq laata ñuy tàggoo ne leen daañu def taxaw seetlu pardon ci euh, li xew euh, ci réew bi jamono ji mu Ousmane Sonko mi fanaan guddeem gu njëkk ca kaso bu Sébikotane gannaaw ba nu ko mandat dépôt ak itam dogal bi tukkee ci ministère de l'intérieur ngir daal di euh, seeyal euh, li nga xam ne moom mooy parti bi di Pastef Ziguinchor Ziguinchor pardon moom Ousmane Sonko mooy seenab maire foofee amoon na ay euh, ñaxtoog yu mel ba ñaari bakkan des ci Lamine Ba bokk ci ndaw yi groupe Futurs Médias ci bët saalumu réew mi mu ngi ci bu mu jokkoo gi Lamine Ba maa ngi lay nuyu di la ziar. lay fay soxna ñëpp a ngi lay fay Lamine aywa euh, ginnaaw bi ay bakkan euh, rotee foofee ca diwaanu Ziguinchor d'abord ndax mën nga dellu siwaat ci euh, manifestation yeeg les derniers développements laata nga ñuy wax tey Ziguinchor naka la yeewoo. waaw Fatou li nga xam ne mën nañ ko wax mooy démb mbir Euh, mu ngi door ci suba balaa sax juge d'instruction di euh, joxe euh, dogalam bi jëm ci wàllu placé ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko su mandat dépôt ci suba si la xare yi tàmbali ci ay quartier yi mel ni Lindiane ak i Néma 2 fàtt ay tali taal ay pneu wone seen na xar ci jamono ji nga xam ne Ousmane ko moo ngi nekkoon en garde à waaye nag bu ñu seetlu mooy bi dogal bi daanoo ba xibaar bi siiw ndaw yi gën nañu yëngu taal ay pneu ci kaw 54 boo ko déggee mooy euh, voie principale bi nekk ci waaye li ko weesu sax euh, dem nañu ba yéen quartier ngi neema de baare yoon bi nga xam ne jóge na Ziguinchor dem Cap Skirring euh, jàmbarloog ñi nga xam nag ak ñoo di tàkk der seetlu bi yoon c'est vrai que gis nañ ne <clears throat> gendarmerie ak armée bi bàyyi ma dugal nañ seen loxo ci li nga xam ne moo di maintien d'ordre bi waaye nag balaa loolee police lañ daan faral di gën a gis bi yoon nag ñoom dugg nañ ci ñu amal li nga xam ne moo di ay patrouille ci biir quartier yi léeg bu ñëwee euh, fekk xale yi baare ñu yëkkati li nga xam ne moo di barricade yi romb euh, ci jamono jooju police euh, encerclé li nga xam ne moo di centre gi ngir manifestant yi bañ yegg ci li nga xam ne moo di service administratif bi ba tax na donte sax ne amoon na ay yëngu-yëngu waaye li ñu seetlu mooy bi yoon euh, xawut euh, metti ni ñu ko seetlu woon ci juin ak ci mars juin bi wees wala sax ci mars deux mille vingt et un ndaxte bi yoon euh, gis nañ ci gendarmerie dugg na ci bu bu baax a baax waaye nag li ñu seetlu mooy bi mbir yi dem na ba mel lu xaw a sedd ay dix-huit yooyu la waa hôpital régional jotee li nga xam ne moo di nag ab benn blessé bi nga xam ne buñ koy faj la mujjee faatu moom nag euh, bu mu faatoo waxtu li ko teg la ñuy indiwaat beneen euh, beneen blessé waaye moom daanaka néew bi moo yegg si fa nga xam ne nag moo di hôpital régional ndax ci bu mu yegg si fekk faatu na ba pare mu nekk ñaari bakkan yi nga xam ne rot nañ ci li nga xam ne moo di manifesta manifestation yi. li ñuy seetlu mooy faat yi mooy ba léegi nag mënaguñu àddu ci lu leer ci lan moo leen faat ak nan lañu faatoo mu nekk li nga xam ne xëy na enquête bi ñu ciy ubbi dina leeral mbir mi ci li nga xam nag moo di askan wi. ci ni ñu ni ñu ni ñu faatoo waaye fàttali ni Ziguinchor moom saa su manifestation amee rawatina li jëm ci wàllu mbirum Ousmane Sonko ay bakkan dañuy faral di waat noonu lañ ko nemmeekoo bi yoon doon desandi bi pour l'instant ñaar rek lañ lañ nemmeekoo gum dal bi nag ñëwaat na Ziguinchor ci guddi ndaxte euh, démb ci ngoon euh, mbir yi xawoon na wàññeeku baax baax ci quartier yi bëree bëri mm. guddi gi nag daanaka amuloon ay yëngu-yëngu nemmeeku nañ ko mm. euh, yi nga xam ne nemmeeku nañ ko tey suba tam bi ñu xëyee li ñu seetlu mooy ñëpp fajaru dugg ci marché yi def seen ndugg waaye nag ñi sant jàlloo nañ xaw a dinañ xaw a sonn tuuti ndaxte war nañu dëkk bi daanaka amul mburu xam naa boulangerie yi liggéeyul démb waaye nag ñi nga xam ne ñoom euh, soxna yi dugg nañ ci marché yi jéemoon dugg ñëpp ñu ngi waaxu seen i soxla ndaxte xamuñu euh, nan la bëccëg bi nar a dikkee mm. waaye nag fu mu nekk nii tamit fu ñuy waxtaanee ni jë nemmee ay euh, affrontement diggante ak i manifestant ak i force de l'ordre xamaguñ nag lan mooy ñëw si kanam waaye nii la mbir yi tëddee ca Ziguinchor xam naa donc li des ba am mooy njaboot yi xëy na bu ñu amee euh, possibilité nañ leen seeti wana waxtaan ak ñoom yéegee euh, téléspectateurs yu télévision Futurs Médias seen i euh, njaxare bi nga ginnaaw bi seen i doom Euh, génne àdduna waaye euh, leneen li nga xam ne nañ ko ci yokk mooy ay ndaw la it parce que keneen ki mu ngi am ñaari fukki at ak ñaar keneen kaa am fanweer ak juróom fanweer ak juróom-ñett mooy tranche d'âge bi nga xam ne bi manifestant euh, ay la ay ndaw ñooy faral di faatu ci li nga xam ne moo di manifestation yooyu Fadidia. très bien merci beaucoup Lamine Ba mu doon indi ay leeral ci loolu xew ca Ziguinchor ñu garder la en repère éclairage amaana euh, di nga ñëwaat fii ak boori 13 très bonne journée à toi Lamine Ba euh, Halpulaar nag la buy wax waxi mburu euh, séeréer bi ci plateau bi wala séeréer yi ci plateau bi euh, lu ñu la wax rek Lamine yow la ñu jaajëfal ko bu baax a baax di masawaat encore une fois di jaale njabootu ñi ñàkk seen bakkan et c'est regrettable benn rek ëpp na ci ay bakkan yu rot ci ay manifesté waxuma nag ñu naan ñaar jàpp ñett daañ ci defaat taxaw seetlu ci kanam ak rédaction bi léegi léegi ñu dégtal leen gëstu bés bi